ñun ay nag ñu fi ñu ngi fi indi Montbéliard Old Saïm ak Normande donc ñu ngi nagu meew lañ ñu fi indi yëpp dañu leen di rat donc ñu ngi nekk nag yoo xam ne dañuy am meew ñoom ñëpp am nañ capacité génétique plus de vingt cinq litres par waas am na yoo xam ne dañuy def ba ay trente trente deux litre par jour quoi suba ak ngoon bi bu ñu leen rattee quoi. Nous dañuy des ci meew dañu de race ay Montbéliard Holstein suñu ferme fermes ici, mooy génnee bi donc le litre c'est à 1000 francs et c'est très demandé dans ci foire bi sa foire bi dañuy soxla meew parce que c'est du lait frais et c'est bon pour la santé aussi exposé nañ fi lu mel ni ay lapin euh, ay ginaar ay pan waa ay perroquet perruche autruche euh, lama daim ay antilope cygne canard euh, ay faisan yooyu yëpp exposé nañ ko suñu animaux ñu indi yëpp c'est importé waaw yëpp dañ leen importé Nous avons la race que nous, au Niger, nous les appelons les Balami, mais ici au, Sénégal, les gens les appellent Azawad. En plus, il y a les moutons Ouda et il y a des moutons Araara et des Tchadiens aussi. Donc, nous avons pris quelques éléments pour euh, chaque race pour venir euh, exposer. Donc, euh, d'un point de vue organisation, vraiment, c'est bon. bari na fas yi ñu fi andi ndax andi nañ fi sel français anglais pur sang arabe fas yoo xamante ne soo obstacle la ñuy def comme yi am na fas yoo xamante ne moom la ñuy andi mooy pur sang yuy daw Europe yooyu la ñuy préparé seen doom mooy daw course Sénégal surtout yëpp a ngi fi quoi ensuite ñun si équitation tamit la ñuy gën a yëngu mooy fas yu soo obstacle comprendre nga ensuite fas yu daw course lépp a fi daal si foir bi bon ñun dañuy def lépp quoi école lañu yor formation dañuy jàngale soo obstacle dañuy jàngale jockey surtout wàllu fas lépp matière wàllu fas ñun si la ñuy yëngu quoi bon ñu ngi nekk Petit Mbao Racine Club de Dakar quoi ok bon fas yi am na France am allemand lépp a fi quoi fépp la ñuy dem bépp fas bu baax rek dañuy bëgg nga ñëw Sénégal pour xam nga élevage gën a dox surtout lañ si jublu quoi ñu bëri xam équitation surtout daal lépp ngir doxal réew bi daal surtout lañ si jublu. bon fii y a différents pavillons Il hein. y a un un premier pavillon mooy fi ñu nekk fii ay xar ñoo fi nekk ah. y a à peu près 250 boxes. cinquante box yi nga xam ne ay ay xar euh, kese ñoo si nekk euh, pavillon bi nga euh, c'est dédié à au secteur à la filière équine Madame Fassi. Hein, ah. donc il tamit am na ay xeetu yu nekk am ay sel français sel espagnol sel allemand yi nga xam ñoom ñooy tëb ñooy def saut d'obstacle yi am ay pur sang anglais pur sang arabe euh, même des euh, chevaux de race euh, brésilienne ak nak ay demi local pur sang quoi donc également la fédération nationale de la filière équipe ñoko également gendarmerie nationale aussi une cavalerie bi ñu fi espagnole

ak euh, nagu métis euh, gozara euh, ak ak local